donc ñoom dugal nañ ci seen loxo jàppale ñu ci ban anam ñëw ci li nga xamante ne mooy engagement communautaire te xam ngeen ne feebar bi toll na foo xam ne dañoo soxla engagement communautaire ñu ñëw ci suñu ay quartier rawatina fi nga xamante ne mooy Médina dem ci penc yi nga xamante ne mooy les penc traditionnels dem waxtaan ak kilifa yi waxtaan ak jigéen yi waxtaan ak ndaw yi sas leen créer loolu nga xamante ne mooy ay comité ñoo ñu jóg taxaw temm pour xeex feebar bi pour mu bañ a dugg ci seen ay gox gaxaat bañ a dugg ci seen ay pénc tey ñu ngi nii ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci euh, pénc bu ñuy wax mbaa kënd donc ñooñu la ñu ñëw euh, orienté ci li nga xam ne mooy feebar bi ñu am nag loo xam ne moom lañ leen sas mooy dem taxaw seetlu nek ay comité d'alerte di surveiller sen ay quartier ba kuñ fa gis ko xamantene da nga ci yow bi ñu la ba nga jaar ci yoonu def également lo lu am solo la orienter pour ñu dem mëna waxtaan ak sen ay population sen ay communauté pour ñu taxaw tém ci bi nga dañ koy li pour fegu ci bi fi andi encore une fois ñu remercier EMAD ci njiital Abdou Khader gay ci jàppale bi ak loxo bi nga xamante ne sumb na ko moom ak ñi koy jàppale ci li nga xamante ne mooy fee xeex feebar bi ak xeex feebar yëpp yi nga xamante ne mooy lëmbe fii di sonal askan bi. ñu ñëwoon fii tey jii formation boo xam ne bii dañuy si nuyoon euh, jàppante bi ñuy bëgg a jàppante dimbali suñu population mbakk na wax leen affaire corona bi fu mu toll affaire jàngoor bi naka lay duggee si nit ñi ak naka lañ ko war a moytoo loola état bi ñëw ak ñëween ak ñoom emat ak Serigne Dakar ñëwoon jël ñu jàppale leen jappanté ba ñu am formation nga xamné gi dañ mun dem sin population ñun wa Mbàkkane yi waxanteex ñoom sox ñoom waxtaan na ñoom seen jaka teranga naka la feebar bi di lëmbee ci Sénégal fi feebar bi duñ ko tuddee mbass té mbass mi ñi wax tamit ah mbass technique technique bu bëri la bu ñu demee ba dénk ko ñun ñi nga xam dañ daan ji xamnañu luy mbass mbass mi nak moy daan nit ki samité doko laal kon nag febar limuy limuy laaj moy moytu nga xamne nit ki ni fu mu febar do joxe sa loxo moytu la mbass la bu la nit ki joxal nga baskal tey sa loxo mbass la bu la bo ñewé ñu dugg nit ki genn ko wat mbass la donc bañ na ba febar mo dafa wuyu tour bobu la wuyu kon na la ñu ñu war ñun sa mbokk mbeur yépp dam leen di wo pour ñu ñun ñëpp ku nekk dak pratiquer mbass mi xexu mbass bi nga xamne sombu nañ ci euh, buñ ko baye wa keur docteur musiba dina am ndax euh, xeex bi du waa secteur de santé kese askan wi dañ ci am wal bu important virus bi virus bu bess la maladie bu bess la lu bari xamuñ ko ci won. au fur et à mesure ñu dem ci xex bi am lu bari lu ci découvrir Té lu ci découvrir lu ci gëna am solo moy xam nañ né pour mu jugé fi il faut que les gens changent de comportement loolu mom jang nañ ko xam nañ ko wóor nañu changement de comportement ce n'est c'est pas une chose qui est aisée pour nous changer comportement également doit docteur kessé ñu ci mëna donc c'est toutes les parties prenantes de la société euh, ñu euh, les chefs de quartier les imams nous xamné que ngi ci biir gox bi buñ on a besoin d'eux pour waxtaan ak nit ñi pour nit de changer comportement